وهو مختار البرايا قبل تكوين الكيان تشنديغلو الخليف مولانا الشيخ محمد الماحي الشيخ ابراهيم نياس خليف جنرال دلا فايدة التيجانية الامام الشيخ احمد تيجاني علي سيسي امام راتب بمدينة الشيخ ابراهيم نياس الشيخ محمد الامين الشيخ ابراهيم نياس ريبريزونتان خليف بيتشندكارو الشيخ محمد منحمي الشيخ ابراهيم نياس بريزيدون ناسيونال جمعية انصار الدين كوميتي دو بيلوتاج جمعية انصار الدين بامبنيانتي ديبارتمان يتشندكارو نيو عندك مكتي ديلين جيجل جامو جبل بنيو ñuy amal at mu jot ren di soixantième édition fa yéene ko amalee ca Sorano yemook samedi le 23 avril 2022 ji ñu nekk ki fa yéene taxawee gàmmu gi nag di Cheikh Mouhamadul Makki Cheikh Ibrahim Niass war fa amal ñaari conférence ci taxawaayu Seydi Ali Alhaji Abdoulahi Niass conseil bu consul bu senegal ca Maroc al oustaz Aboubacrine Omar Roqi Niang di adjoint porte parole bu Madinat Cheikh Ibrahim Niass programme bi nag nii la fas yéene tëddee bu ñu demee samedi le 23 avril 2022 ca Sorano 11h pile nous dalal gagner. 12h diap 12h15 cadre coordinateur du comité de pilotage Gamou jëppal jamiyatu Ansaruddin, Ansaruddin. 12h diap 12h30 cadre président national jamiyatu Ansaruddin, cheikh Cheikh Mouhamed Mounhamina Cheikh Ibrahim Nias. 12h30 diap 13h nous Andek Zikarsi. 13h diap 14h conférence Bidal Didor, nous door ñu fas ci ànd ak Seydi Ali Abdullahi Niass muy waxtaane relation cheikh al islam alhaj Ibrahim Niass ak al quran al karim 14h15 jullik tisbaar 14h20 jàpp 15h20 deuxième conférence bi ñu fas yéene ci ànd ak adjoint porte-parole bu madinatu cheikh Ibrahim Niass al oustaz Aboubakirin Omar Roqi Niang muy waxtaane rôle ak taxawaayu l'islam ci politiku àdduna bu bees bi mbokk yi xew-xew baa ngoog gàmmu annuel bu jëppal 60e édition ci ren ñu jàpp ko samedi le 23 avril 2022 ji ñu que ca Sorano képp ku ko dégg mooy sa oote bu ko kenn uute